mbokk yi dal leen ak jàmm te ngeen abonné te like te partagé ci chaîne bi di Tivaouane 24 TV seenu diine ji seenu lislaam bi seen bi leen di jëriñ Tivaouane 24 TV seen bi dox saa su ne ngir dab seen bànneex xew mi am loo bëgg a siiwal moo xam programme la wala lu mu mënti doon jokkoo wala ak Tivaouane 24 TV ci numéro yi barki Kaaba gi Tivaouane 24 yàlla na ko yàlla def télévision bu mag ci barki ah, yonent Tivaouane 24 yàlla na nekk télé incha allah اغفر لأمته وارحم بأمته واذكر لهم القرآن عربيا اغفر لأمته وارحم بأمته

أمته وارحم بأمته واستر لها واسترها ربي الله الحمد لله ذي تيسير الله نظم داراري له يا الله يا الله يا الله صل صلاة جل انتهاء على سلم على المصطفى يا الله يا الله تعطل صلوات الحصة الحكماء أهل المحبة